koo folli fal abu ubayda abir ibnul jarraax jox ko lettre mu jóge Médine dabi ji soldaar si ca Yarmouk ni ko boo demee ca saasa na Xaalid folleeku nga ji nekk général mu topp sa gannaaw Abu Ubayda ñëw ànd ak mbooloom en tant que général hmm. nouvellement euh, élu comme gaa ñu leen ko def nommé moom mu ñëw ba ci ñëw ba ci toolu xale bi xam nga lu mu def hmm. bi mu ñëwee dafa xool situation xare bi gis ni fii bu fi waxee waxi folleeku coow day am werante day am parce que ñii bëgg nañu Khalid bëgg goo xam ni kolewu nañ ci personnalité mooy comme li jeunes yi mel ci mm-hmm. ci bëgg nañ ko bëgg goo xam ni topp nañ ko topp goo xam ni ku ñëw di leen wax ni xalifa bi folli na Khalid euh, coow dana am te bu coow amee noon bi danañu gañe noon bi dañuy gagné mm-hmm. bis bu ñu werantee suñu biir ñaari général am ñu naan kii ñu naan kii ñuy ànd fi ñuy ànd fële noon bi gagné ñu kon nan la Abu Ubayda def dama lay jàngal ñun li ñu gëm ba tax ñu mel noonu li Ousmane Sonko sukkandiku ba wax lii moo tax man la man jaaxaluma parce que lii jàng na ko mm-hmm. Abu Ubayda dafa nëbb lettre bi ñëw jël armam nekk soldaar ànd ak xaalit xeex di xeex ba ñu gañe mu ñëw renforcer coow loolu ñuy coow Khalid ak bëgg gi ñu ko bëgg mu ñëw renforcer ko ñëpp jàpp ni xalifa bi kii jóge ci xalifa bi kii la gën a renforcer. Mhm. ñu ànd ak Khalid ba gañe ba jàmm am ñu toog nag seen seen jàmm aboobee dañu bëcc lettre bi ni ko Khalid Omar ibnul Xataab amirul muminina folli woon na la mu ne ko kañ la ma folli mu ne ko bi may ñëw moo ma àndaale naa lettre bi ah, yow li nga def tu noonu amirul mu'miniina kàddoom waaw la sant mu ne ko d'accord waaye bu ma ñëwoon wax la ñu folli na la ñii ci soldaar yi mënuñoo dégg nga follee ci biir xare bi mm-hmm. te bëgg nañ la bëgg goo xam boo foolee coow dana am te nag ñu gañe moo ëpp doole ma falu moo jiitu téyel baat boobu ñu gañe mu ëpp doole ma falu ma falu man moo ma gënalit ma nekk général man sëriñ bi ñii lii la Ousmane ko jàng ba wax lii mu wax kon nag Khalid ni ko manit nangul naa la seetal ci liggéey bi ma war a liggéey ci kii bi lu ma man loo jàpp ne mën naa ko nga sant ma ko ma def ko ci xol bu sedd guy topp sa gannaaw yar yaa ngoog sëñ bi ñooñu boo leen jàngee waxuma jàngantu gaa ñi gaa falaa falaa yi di woote ay yenn affaires yi mais boo leen jàngee njàngeen bu xóot seen projet politique seen gisin nga dem ci terrain bi ñuy liggéeye nga xool seeni acte parce que yonentu salaa sallam moo leen yar soo leen jàngee boo duggee ci projet dangay xam li nga ci dugg lan la man dama lay wax man Tahirou Fall ci ñu gën a doyee de la waaye bi ma duggee ci Pastef bi may dugg buntu jàppale Ousmane Sonko laa duggee waaye bi ma duggee tëju naa ay weer daanaka dugg xalwa di jàngat projet bi point par point hmm? parce que du ma du ma dugg ci loo xam ni oo ma ci conviction oo ma ci conviction ma ciy ànd du ma ko def mukk ci àddina su ma ci amee conviction nag su ma sañoon Ousmane Sonko mooy dem. ok waaye nag bu demul bu demul am na fu ma bëggoon tamit am na fu ma bëggoon tamit nga nga nga ñëwoon ñu si mooy lu jëm ci euh, candidat yi. maa ngi la ko wax sànq nga ne Bassirou mooy seen candidat mm-hmm. mais Ousmane waxagul mm-hmm. dégg nañ ko mu ne buñ ci tolloo tamit dinañ wax ki nga xamante ni moom la ñuy moom moom la ñuy désigné ñu dem lan moo waral yéex a tànn boobu dafay soor gaa yi wala lan la waaw xam nga xam nga moom bi muy wax daf la wax ay schéma mm-hmm. waaw ay schéma la teg daf la wax ay contexte daf la wax ay stratégie euh, li ñuy tuddee lu ñuy tuddee contre stratégie maanaam ñële ñu ànd ñu ñu jàkkaarlool lii la ñuy def bu ñu defee lii lii la ñuy def bu ñu defee lii lii ci mm-hmm. dynamique boobu lay waxee dynamique boobu dynamique boobu def naa ni leer na ni kon la mu waxoon yëpp gis nañ ko la li ci des mooy Pastef ñaari schéma yi benn lay doon ah su fekkee jiitu naa wax ci ni jomaay lay àndal damaa romb damaa jàngat li jeunesse su Pastef ak mouvement beeg kilifa yëpp di wax. cadre yeeg responsable cadre yeeg responsable li ñuy wax loolu laa jàngat. mais mënuma laa indil génn kayit gu officiel ni def nañu communiqué ni nangam waaw mais nag man xam naa liggéey bi ni muy doxee. Mhm. xam naa nit ñiy wax ñan lañu ak fi ñuy waxee. loolu moo tax ma waxee noonu euh, waaye intéressé wuñu wax naa la ko ba tàyyi intéressé wuñu jëmm yi. président Sonko confirmé na ko te loolu mësta am Afrique boo gisee mënuñoo mënuñoo jàkkaarloog projet Pastef boo gisee mënuñoo mënuñoo mënuñoo mënuñoo tëral sax lu baax. mënuñoo mhm. bëre xoolal li Pastef indi pour bëree ma wax ci ni xale yi defee ci ma ci làmb li Pastef indaale da na a bett mosuñu koo jàng ci bëri wala bi ñuy football système bi ñu indi système boobu mësul am ci système yi yi ñu jàng ci schéma yi ñu jàng ci ci football. Mhm. buñ la indi leen loo mësta xam li ngay njëkk a def mooy gëlëm. Sénégal mësta xam leader politique boo xam da nga koy téye muy gën di parti am di mm-hmm. gën di dund mësul xam ab parti mm-hmm. politique boo xam ne nga tas nga ko mu ëpp doole mësul xam parti politique bi dajale ay millions yi millions yi millions yi ba jëm ci milliards mm-hmm. di ko dajaleel ab parti mës koo xam li Sénégal mës koo xam ku àndut ak ma ne di nga nangu li Sénégal mësut a xam ab parti politique bu am njiit lu ñu bëggee ñu bëggee Ousmane Sonko Sénégal mësta xam parti politique boo xam ni moomoo seen communication moomoo seen i xalaat moomoo seen dara amoo foo ko téye Sénégal mësta xam loolu Sénégal mësta xam parti politique boo xam ne dañ naan projet bi projet bi projet bi projet bi. mais ñu bëri mun comprendre luñ tamit ah dañ naan projet bi projet bi mais. projet bi comprendre ah, parce que. projet bi moo tax Ousmane Sonko ñu xam ko. projet bi moo tax ñu xam Ousmane Sonko ñeneen ñu ñëw naan ma yéen lan mooy seen programme. da ngeen di wax projet bi yow Ousmane Sonko ñaata at mu ngi bind ay livres. dajeek àddina bi yëpp toog ci kaw ab turbine journaliste yi gën a xereñ wër ko mu yor ab livre naan lii ak lii dem def loolu Casamance def ko ci mbind ñu ñaata at ñi ngi def loolu mhm. xanaa kay dañoo bëggut dégg projet bi ci wàll yëpp ci bon gouvernance réew mi nuñ ko war a yore mhm. ak càcc jóge fi delloo suñuy ressource sunu réew li nu am ci ay koom yàlla may nu ko ñu moom ko delloo ko buñ ko delloo ci sunum réew ñu séddale ko ci ci anam goo xam ne gu équitable la ku ne la cay sa àq nga am ko suqali suñu mbay ci façon goo xam dañ koy moderniser mais dañuy dellu ci suñuy am-am suñu système de santé ñu téye ko tàmbalee ko ci suñuy njiit ñuy fajoo fii Ousmane Sonko nee nañ ko demal faju ci fële mu bañ ak yeneen ak yeneen pour diir projet bi ku ko xamul ci Sénégal amul. Mm. mais nee na tamit. dégg nga mais nit ñi ñoo fi nekk rek di réerantal. imaam nee na képp koo xam ne tamit euh, am nga gis-gis wala euh, am na lu mu ko définir daal am nga sa sa wàll ci biir projet bi loolu tamit est-ce du ubbi bunt ëllëg ñu seen ñëpp du ñëpp fekk si ko. waa xam nga un projet bu ñu ko dee wax lu ñuy bind lu leer la. te waa Pastef nee naa la gisuma ci senegal wala ci Afrique parti bu dajale ay cadre yu toll nii Pastef dajale. te loolu man dama ko wax en connaissance de cause waxuma ko ci làmbatu. Hmm. xam naa ñan ñoo. liggéey yor ci cadre keneen yoru ko. mukk ci àddina xalaatuñ ko amuñu ko sax ci ñoo xam ni am nañu expérience. ay ay experts yu gën ñu bëri dañ leen ñoo xam ne dañ naan duñ jox réew mi ñuy jàng.